Les droit de choquer, euh, c'est à, à, une vitesse. Pourtant, je fàttali ni euh, constitution loi la loi française n'est-ce pas euh, tout outrage outrage qui est commis publiquement n'est-ce pas envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires envoyés les chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités dafa am une sanction bi nga xam ne dañ koy teg sa kaw parce que waroo waroo xas ñooñu waroo leen wax lu la neex c'est dans le loi l'article 37 n'est-ce pas lay jox euh, amende 45 000 euros soo ko defee waa kon ay ambassadeurs ak plénipotentiaires yoo xam ne leen yónni ak ay chargés de mission yoo xam ne ku leen wax nakas dul noonu yoon dafay dal sa kaw yoon boobu wante moo ne wax leen lu leen neex teg ko ci deru yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais li julti la pression bi nga xam ne ñun suñu kilifa diine yi ci leen di xaar ani aujourd'hui les xalif généraux au Sénégal Nous war une pression sur le président Macky Sall pour obliger la position au Sénégal Madame Sénégal position moi, il respecter et il doit le faire savoir à la France on ne lui demande pas de faire la guerre à la France on ne lui demande pas d'envoyer une armée à la France on ne lui demande pas de faire Macron n'est-ce pas on lui demande juste de rappeler l'ambassadeur français fille du Sénégal n'est-ce pas signifie que nous ko lii vraiment caricature du sommes d'accord nous. ko te bu France persister ci caricature yi ñun sama dëkk on sera obligé kon am beneen taxawaay par rapport à France moom bu dee sax dañuy bañ seen produit ñëw Sénégal ndax doole ñuy yaakaar pare yëpp ñu mais lii euh, demande le bi nga xam ne France généwul woon moom ba Sénégal jàppee ay góor jigéen fii 2009 généwul woon a envoyé Sénégal ay remarquam ne ko d'accord ma ngay japp góor jigéen góor jigéen ni bàyyi dañu am sen droit orientation sexuelle donc France moom li mu gëm muy walu mariage pour tous ak walu homosexualité mom amu ci gêne ci ci remonter les bretelles à tout pays bi nga xam euh, agir contre lolu n'est-ce pas euh, ñun tamit ñu war na am nak bu euh, nous le peuple les associations les organisations islamistes imam yeeg ñep ñu exiger ce boycott là Nous pare exiger ces Macky Sall mu taxawal ñu parce que dans notre constitution Macky Sall est le garant de la constitution du Sénégal la constitution parle de nos valeurs culturelles et cultuelle. Parce que dans la culture, il y a le culte, n'est-ce pas euh, Nos valeurs cult culturelles, ou le il euh, moi le ciment euh, de l'international nationale du Sénégal, Maki en est la garant. donc qui kuy Saga Sénégal ci bitim réew ak ku mën doon Macky doit s'adresser à toute la diplomatie sénégalaise euh, pour te rappeler alors dana bàyyi Sénégal bi ngay saga képp ku saaga lu sénégalais Sénégal, gëm muy aaday Sénégal ak ngëm du Sénégal ak histoire u Sénégal ak Sénégal Macky Sall dafa am devoir tamit ba tey rappel la awar na la bàyyi ji ngay saaga waaye bokk na ci gëm-gëmu Sénégal ak ci taarixu Sénégal ak ci am-amu Sénégal li gën a kawe nag te gën a rëy mooy yoon si Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est-ce pas donc kon lii wax dëgg yàlla man jàpp naa ni la pression doit être faite à tous les niveaux au niveau populaire dañ ci war a taxaw nit ñi au niveau euh, marabout association yëpp war nañu jug dem seeti xalif généraux yëpp ñëpp am sax benn déclaration bi nga xam ne signé de tous les xalif généraux parce que xalif généraux yëpp kenn d'accord ñuy xas yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn si ñoom ñëpp ñëpp njabooti teel sa sam ñëpp ay sëriñ daara lañu ñëpp ay jullit xàqan lañu ñëpp ay walu yàlla yu mat lañu donc ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñoo bokk benn bëgg-bëgg ci ñu xormaal te jox cër yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam donc déjà euh, am loolu yëpp obligé jox ko suñu président Macky parce que moom suñu ndaw Macky Sall ñoo ko ñoo ko fan ñun lay liggéeyal n'est-ce pas nit ki nag dama ne mënuñoo yaakaar pare yëpp nu c'est Sénégal euh, euh, jullit ñi. il faut ñu pare wéet bu baax a baax ci xeex bu ñu fas yéene xeex ci àdduna bi déjà su démb rek euh, maa ngi koy waxtaan démb ku may wax ne ma saa Vatican nag léegi euh, Vatican day wax dëgg yàlla dellu na ginnaaw euh, waaw Abdul Karim Vatican Erdogan mooy le seul leader musulman bi xam ne qui ose assumer islamam islam nag dafa am problème instant ci leadership itam il faut ñu nangu ko instant yi islam ñan ñooy ay kilifaam ay ñoom Arabie Saoudite lañ Arabie Saoudite ba muy créé yi sax en 1969 Sénégal pays créateur la si si si fondateur la bokk ba mu koy créé pour lan la woon c' pour contrer rek l' bi nga xam dafa juddu Égypte les noonal yi nii n' ce pas bu ñoom Nasser lii kese ma ko waraloon waaye jug xeexal lislaam taxu ko jug taxu ko jug parce que Arabie Saoudite aujourd'hui xeexalul l'islam